kii la kii la Massamba Leye la tudd Serigne la tudd waa la aussi am naa peut dinaa yónnee adresse am bu waaw yàgg na ñëw di ma jaay may jën ñuy jëfanante jëflante yu rafet quoi wala moo àndal ay nit ñu jëflante jëflante yu rafet mais comme gis naa ne mooy jëflante moom xam nga rafet na te dafa yomboon tam si vite feeñ tourne yi def ku nekk dem benn jour na mu profité si loolu man j'avais confiance en lui comprendre nga moom yaay mos na fa tëdd feebar Touba sax moom problème xaalis man la woo ma yónnee xaalis bu bëri tu vois mais bon yow yaay am yërmande mais ñoom dañ lay jàppee. aussi lan laa la bëggoon wax euh, man hmm, jaay na ma oto tu vois ma jox ko avance mais boobu lañ ko gëj a gis waaw le 23 juin boobu lañ ko gëj a gis xamuñu fu mu nekk comprendre nga. man tam oto bi ma jaayan naa ko mais ku ma ko jaayan delloo naa xaalis sama pare delloo naa oto man maa pet côté yëpp ko moom papam ak ak benn boo feree am jotoon nañ moo woo téléphone ne ñoom dinañ waxtaan jëlee engagement mais génn nañ si ba set xam nga fii moom Sénégal la nit mooy jógee fay naan du mujj fenn bu leen fay ak bu leen defal gi dem naa si yoon na yoon mu ngi def liggéeyam moom téléphone am bu muy mujj tàkk place de l'indépendance la tàkkee fekkee dafa génn dëkk fi tam tôt ou tard dina ko xam mais lu waleer waleer whatsapp am mi ngi tàkk di fay donc mu ngi jokkool ñu mu bugg jokkool si waa këram xam nga tamit bokk sekk ak ay baadoolo yoo xamante ne xamuñu àdduna noonu rek la mën a demee papam xam naa bu baax waaw xam naa benn magam panim bu ñuy wax zaal aussi kon ñëpp a fi ñu daan liggéey place de l'Obélisque mais bon yàlla baax na daal comme yëf yi demee noonu daal man maa koy dugal si internet bi Philippe Andé ko partout ko gis na ma woo si numéro bi sama numéro la Serigne Massamba Leye la tudd waaw ay baadoole lañ amuñu dara bëggu noos tamu yoruñu waaw donc nii la yëf yi demee beaucoup